September, the house settler. waaw chers internautes de Sénégal TV amati nañ mbégte kontaante bu baax jàkkaarloo yéen fii ci seen plateau taxaw seetlu tey nag dañu génn loko yi dem fi nga xam ne moom mooy kër Aïcha fekk ko fas yéene waxtaan ak moom moom mi nga xam ne ndeysaan mbuur la jógee ñëw fi nga xam ne moom mooy Dakar di fi jàngee mais balaa boobu rek balaa ma xuus ci waxtaan bi dama ko nuyu Aïcha nuyu naa la. waaw Moussa ñu ngi lay مشاكل في هذا فما نخول به waaw wala nag tii. non non yéen kenn doog a mbokk yi bi mu nuyoo ba pare ñu Aïcha ñu indi thème bu am solo mooy lan mooy ñu gis ni léegi élèves yi jàngatuñu di tax pourquoi moom ñu choisir que dafa nekk élève bi nga xam ne jóge na ba pour ñëw ñëw fii ñu fas yéene waxtaanee ci moom est ce que xam na dëggantaan moom lan moo ko indi Dakar Aïcha bu ma la doon posé question lan moo tax nga bàyyi mu ñëw fii di Dakar. waa Fouta damaa bàyyi ba ma def ko pour ñëw Dakar. jàng si wut si xam-xam. jàng si wut si xam-xam. loolu la wax mais est-ce que Aïcha yaa ngi jàng wut xam-xam. yaa ngi ci mais yaa ngi ci dafa mais ce que dëggantaan parce que mun ngaa toog man yaa ngi ci mais est yaa ngi ci. ñun saa maa ngi ci maa ngi leen di leen waaw mais yéen da ngeen a mën a naxaat yéen xale yu jigéen ñi. ah Aïcha dara jarul ko naxaate. Aïcha dara jarul ko naxaate mbokk yi dara jarul koy naxaate mi ngi tënk bëgg tënk wax ci bëgg ñu tëj ko waaye xam ngeen ak man xam ngeen ma saa su ne damay yaatal waxtaan bi mu gën a yaatu mais Aïcha dundin bi Dakar nga jóge dëkk ñëw dëkk feey métti nii na koy dundee. dafa sori dafa sori day métti sa ay ñëwagul sa xeex ñëwagul logement ba nga nekk tamit ñëw doo xam ne ñëwoo métti loolu mais yow na nga koy dundee da wut ay far da ngay baraan wala am ay ñooy génnal ñu lay paye je sais pas wala say parents mais am na noo koy dundee quoi waaw man de yaakaar naa ni samay samay parents yaakaar naa samay parents parce que chaque mois mm-hmm. ñoo mën ko sama lekk moi sama formation dañ koy calculer sama agent de poste tamit pour sa les besoins sa agent de poste pour besoins mais Aïcha soo gisee ma laaj ndax ma laaj ndax gis nañu école yi yéen ma gën xam yéen ñi may waxal xam ngeen seen bopp xam di ngeen ni waa ji tey daf daf ñoo jugal mais Aïcha xam école yi dafa dem ba benn instant affaire te da ngeen koy est que sax bokkoo ci ñu koy dund loolu nag gisee ci biir école yi. surtout université la léegi tax ci école yi doxalante bi. Ah. jaaxal na ma trop parce que nekkul école yi école yi kese ñoo doxalante. Ah. bureau yi sax dañuy doxalante. Ah. daayira sax dañuy doxalante. mais ñooñu d'accord naa ñun dañuy liggéey mais yéen ñi xam-xam ba pare di doxalante c'est grave. mais ñi nekk ci bureau yi dañuy kaay xam-xam. non non ñu nekk ci guddi yi bureau yi dañuy ñëw di liggéey. pour ñu leen di fay par mais loolu ça n'a rien à voir ak yow yéen ñi nga xam ne. mais dama bëgg nga répondre li ma ci bëgg soxlaa nga répondre ko ci. pourquoi dama euh, exemple. par exemple. ci bureau yooyu ngay wax. pour na ñëw ci bureau di liggéey. bien sûr mais en même temps muy jàngaale. en même muy jàngaale d' je comprends mais Aïcha il am na y a des bul bañ. non bañ ma mën nga bañ yow peut-être dundoo ko. mais yow est-ce que yow sax nekkoo di ko dund moo tax nga koy bañ. man mënu ma koo bañ sax parce que da ngay hmm. ne gisuma. mais bu ne ce que tu trouves yi ñoom ñiy jàng xam seen kër ñëw ci seen biir di doxaanante ba fàcc ñoom loolu la fi waaw loolu moom euh, je trouve que ni. Hmm.

élèves yi jàng c' est normal ñoom ñu doxaanante c' est naturel moom loolu la wax man waxuma ko yow mi yow mi mesitaan aussi bu fekkee loolu nga wax mun nga bind sa commentaire de suuf après nga wax ne moom loolu loolu baax na mais Aïcha d' après loolu ñaata yaa ngi Dakar. Mm. Mm. Euh, yaa ngi doog a egg am am un an wala. non tout damay soog a yegg si mais amaguma fi euh, exactement. Aïcha kon dund ko dara.

parce que lii affaire lesbienne beeg yooyu bëri na est ce que yéen entretien bi doon ngay dund. ah gisaguma ko de sama di chaque mm-hmm. jour di di te ak dëkk ni nga nekk bi de quatre personnes ngeen ci benn bu di jot xaar yooyu yóbbaale dafa dafa dafa yomb yooyu yóbbaale dafa yomb mais euh, suñu cas sama chambre franchement euh, gisaguñ ko. Hmm. ak nga li mu weekend bàyyi la nga nuyuwaale sa waa chambre. leen. waaw maa ngi leen di waa 47 béykat. Hmm. xam nga di kontaan si bu baax a baax. kontaan ñoom di ñëw xam naa nag ñu ngi waaj a jeexal li nga xam ne moom mooy suñu émission mais Aïcha tey euh, problème yi élèves yi di dund tey bu ñu joxe solution ak lan nga yaakaar ne ñoom. war nañ ko war a mën a bàyyi wala jàng ak li leen fi indi ndax jamono ji boo yëpp di jàngatu sa solution ci ñoom en tant que jeune. solution fu muy njëkkee mooy ñu xam lu bëgg. ñu xam lu bëgg. xam lu fi mhm. bëgg-bëgg. limité seen bëgg-bëgg. Mhm. boo gis ni kii am na forcément mhm. parce que kooku moom la am gaaw mun naa am fekk ni ay parents wu moom ko jox. Mhm. yow nga yaakaar ni góor nga ko jox. Mhm. donc mhm. ko kon mbokku internet yu Sénégal TV loolu moom mooy mot de la fin kon nag moom li mu wax nañ jàpp loolu waaye man li ma wax tout le temps rek mooy li am jàng dafa am solo wut xam-xam dafa am solo boo ci tollee pour wut ko wut ko boo ci tollee aussi pour jàng jàngal ndax ëllëg. dafa am solo ñu bëri ndeysaan dem nañu ba màgg ni buy bu démb doon tey ma jàngaat wala bu démb doon tey mu wuti xam-xam wala bu démb doon tey mu wuti métier kon yow mi nga xam ne dañ nga cee nekk toll ci te mën ko demal nga nekk ko balaa bay du way mbuus kon mbokk internet bi Sénégal TV saa su ne ñu laa ko defee sama émission taxaw seetlu fu ne dinaa ko fu ne dinaa ko mais lépp rek pour war nañ jeunes yi am nañ ci kàddu am nañ ci euh, xalaat boo xam ne war nañ ko mën a war ci askan bi kon mbokk yi ba beneen incha allah ngeen jëf du ma fàtte nag benn yoon ñi nga xam ne ñooy sama waa équipe caméraman ñoom xaadim ñu nekk ci ginnaaw ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne gisoo leen su limee damay jum kon peace love à équipe. taxaw takku tembe taxaw seetlu.